بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله sun ñaar fukki sun fanweereelu dàtt ak juróom-ñett tey ñu ngi ci buntab asalaatu bunt bi tey ci salaatu mu ngi wax ci teggiinu jàkka yi jàkka yi ku ca nekk ak teggiin yàlla war nga teggiin woo ko fa ca sa waxin ak sa jëfin ak sa toogin sa lépp rek lu mel ni booy dugg jàkka it loo war a wax booy génn jàkka loo war a wax liñ la daganal ci biir jàkka nga war ko fa jëfee ak loo warul jëfee tere yaag bàyyi daal loolu la bunt bi di jàngal bunt bi loolu lay jàngale ñu ngi ko ubbee ci aaya bi yàlla subhaanahu wa taala di wax ni wa ahidna ila ibrahima wa ismaila an tahira baytiya li taifina wal aakifina wa rukai sujud yàlla dafa wax ne wa ahidna digal nañu ibrahim wa ahidna ila ibrahima digal nañu ibrahima wa ismaila ak doomam ismaila lu leen yàlla digal an taxira ñoom ñaar ñu laabal baytiya sama néeg man yàlla laabal ko ñan waxul ñu laabalal ma ko waaye ñu laabal ko ñan li taifiina ña nga xam ne ñooy ñëw di wër kaaba ga wala akifiina ak ña nga xam ne dañu féetewoo rek kaaba ga def seen itikaaf ngir jaamu fa seen borom yàlla nee na yow ibrahima ak yow ismaila yéen ñaar laabal leen sama néeg nekkal ñooñu waru ka ak sujudi ak ñëpp ñu fay ñëw di jaamu yàlla rek laabal leen néeg ba ñooñu def leen ko mu nekk néeg boo xam ne daal képp ku ma jublu bëgg ma faa jaamoo ak nu mu mën a doonee anam ya dana mën a dajoo ba ñëpp mën fa nekk ci anam googu nga xam ne jàmm rek loolu lañ ci jublu kon nag aaya boobu la ñu ubbee li bunt bi ndax lu mën a doon rek ci soriatu alquran wax na ci yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam ci ay xadisam moom moo koy leeral ba ñu mën a dégg lay alquran di wax ci loola kon nag loolu la yàlla digal ibrahima ak ismaila ñu déggee ci nag ne ñoom ñaar ba tey ñoom ñooy ñëpp ñoo xam ne gis nañu néegub yàlla bu leen jege wala bu leen tuddee ñu war fa nekk di laabal néeg ba laa laabal néeg ba ci melal ko melokaan buy tax nit ñi mën fa dajewoo jaamoo yàlla na yàlla gërëmee moo xam laabal néeg ba ci xeetu lépp loo xam ne luñ fa warul def la ñu aaye ko wala boog lu yombalal nit ñi ñu jëf ko fa ñu tabax néeg bu mu méngoog loolu laabal néeg daal yaatu na lool kon ku mu doon ci ñun ñëpp nañu doon ibrahima ak ismaila ci ndigal li yàlla digal leen an abi xumaydin xadis bi njëkk ci bunt bi abi xumaydin moo ko solo radiallahu anhu aw abi usaydin radiallahu anhuma ñaar ñi kenn ku mu ci doon rek moom la bu arab waxee mu ne aw mooy tekki mën naa doon kii mën naa doon kee kon xumaydin moo ko solo wala ku ñoo abi usaydin la ñoom ñaar daal kenn la ci mu jëlee ci yonente sallallahu alayhi wa sallam yonente wax ne ida daxala ahadukum almasjida falyusallim ala annabii sallallahu alayhi wa sallam bu fekkee kenn ci yéen dugg na jàkkaat ji jàkkaat ji mooy jàkka jan ñu déggee ci ne kon alif ak laam boobu ñëw ci jàkka yonente bi la sallallahu alayhi wa sallam ku ci dugg ci yéen ci jàkka ji falyusallim nan nayu ala annabii ci kii yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nan nayu yonente bi nan la ñuy nuyoo yonent bi nag assalaamu alayka ya rasulallah boo waxee loolu rek nuyu nga yonent bi wala boobu nga def salaatu ala nabi ba tey boo ko defee nuyu nga yonent bi kon ku mu doon ci yéen bu duggee jàkkaay yonent bi rek ne nuyu yonent bi summa yaqul li allahuma iftax li abwaaba rahmatika nga waxaat baat yooyu boo nuyu yonent bi ba pare nga ne allahuma yow yàlla iftax li ubbil ma abwaaba rahmatika sa bunti yërmande yëpp ubbil ma leen ba lépp lu ma jublu sama wax sama jëf sama lu feeñ sama lu nëbb sama tey ak ëllëg lépp dina dajoog ne sa ngërmande rek laa cay amee fa isaa xaraja bu fekkee ne génn na ci jàkka ja it ba tey fal yaqul li na wax allahumma inni asaluka min fadlika allahumma yow yàlla ak li mu làmboo nag ci ngëneel lépp allahumma baat bu rëy la boo ko waxee rek teewlul ne yaa ngay tudd baat ba nga xam ne baat gënu ko rëy ci woo borom bi ndax boo ko xasee wax ci xolin bu dund bu mel noonu ci ngën gu rëy gu sell na la wóor ne mbooleem bunti xéwalu borom bi lépp ubbeekul na la loo ci teg nag muy ñaan ak yàlla nangul la ko waaye nag xol ba mooy ubbeeku njëkk wax ba ci la gën a mat lan mooy ubbi xol nag yéen nañu ko yàlla may ba ñu janoog borom bi ci kenn bi looy wax inni naka man sab jaam bii asaluka maa lay ñaan min fadlika ci lenn ci say xiwal wala min fadlika sa xiwal lépp ngëneel yàlla dafa bari lool moo tax ñu def ci min bi kuy ñaan yàlla nag ñaan ko lu bari maa ngi lay ñaan ci say xiwal maa ngi lay ñaan ci sa xiwal kon tudd nga baat boo xam ne raxma la tudd nga baat boo xam ne fadl la kon rahmatullahi fadlullahi lu mu ci doon rek ay ngëneel yu bari la jaam war na ko di ñaan boromam xadis la boo xam ne rawahu muslimun wa abu daawuda wa nisaiyu ñoom ñoo ko solo muslim abu daawud ak nisaiyu an fatimata radiallahu anha jëlee nañ ci fatima mu wax ne yonente sallallahu alayhi wa sallama ida daxala al masjida bu dugaan jàkkaan ji salla ala muhammadin wa sallama daf daan julli ci yonente bi salaatu ak salaamu da daan def loolu allahuma salli ala muhammadin wa sallim ku def loolu def nga ndigal la allahuma yow yàlla salli muy salaatu ba wa sallim muy salaam bi mu wax kon allahuma salli ala muhammadin wa sallim wala yaa xam ban salaatu nga mën ci xeetu salaat yi boo ko defee rek julli nga ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon ku mu doon ci yéen bu duggee jàkkaay yonente bi na nuyu yonente bi wala na julli ci yonente bi kon xadisa ngoogu nuyoo la wax te ba njëkk jàng xadisa ngi ba tey lu mu wax julli ci yonente bi ñu déggee ci rek ne benn la wa qaala rabbi igfir lii zunubi waftax lii abwaaba rahmatika xadis bi fatima solo daf ci teg ne da ngay wax ne rabbi yow sama borom igfir lii nang ma baal zunubi samay bakkaar baal ma samay bakkaar lan mooy bakkaar nag bari na lool ci jaam bi amul jaam buñ mën a wax ne set na mën a mucc ci bàkkaar lu dul ko yàlla def nga nekk maxsum te yàlla ay yonentam lay def ñuy nekk maxsum waaye ñoom sax dañuy balu yàlla lan mooy kon balu yàlla balu yàlla duñ ne ku amul bàkkaar du ko def war na ñëpp ndax ci xeetu jaamu yàlla yi la yàllaa ko digle rek kon balu ndax bàkkaar sakkoon na la mu set wala balu ndax yàlla gën laa musal nga mën a mucc ci bàkkaar bu fekkee balu ku dul mooy yàlla la waftax lii nag ma ubbil abwaaba rahmatika mboolem say bunti xiwal loolu fatima radiallahu anha nee na loolu la ñuy wax yonente ko wax salallahu alayhi wa sallam mu nettali ñu ko wa ita xaraja bu fekkee génn na ba tey sala ala muhammadin wa sallama mu julli ci yonente bi salaatu ak salaamu kon xadis yi nuroo nañu lu muy tekki ñu indi ñaari xadis yu nuroo mooy tekki dëggu solo bi rek jiw déggee na ci yeneen te jiw déggee na ci yeneen te ñu bokk luñ dégg mooy tekki ne dégg ba lu wér la yeneen te ko wax sallallahu alayhi wa sallam muy xadis boo xam ne rawaahu tirmisi yu tirmisi yu moo ko solo ci wéeru waay bu wér nag rafet wa kaana annabiyu sallallahu alayhi wa sallam ida daxala almasjida qaala audu billahi alazimi wa biwajhihi alkarimi wa sultaanihi alqadimi min alcheytaani alrajimi lii yonente sallallahu alayhi wa sallam daan na ko wax bu dugaan jàkka da daan wax ne audu billahi maa ngi muslu ci yàlla alazim yàlla mu màgg mi wa biwajhihi maa ngi muslu ba tey ci màggam màggug kanamam màggug nekkam màggug jëmmam alkarim bu tedd bi wa sultaanihi ak nguuram bi nga xam ne alqadim moom mos bi nekk di nguur maa ngi muslu yàlla ci dooleem yooyu mina seytaani ci seytaane mi nga xam ne arrajim ku jam la buñ tuddee seytaane rek dañuy bëgg a tuddaale jam gi ko yàlla jam ndax soo ko waxee rek moom sori na la seytaan rek noppi baaxul teg ca rajim ndax boo ko waxee rek moom daw na la dox daw boo xam ne dox bu sori la kon da daan muslu yàlla ci seytaane njëkk mu dugg ci jàkka ja fu muy duggee lay wax loolu waaye nag fa ida qaala dalika qaala seytaanu hudisa min nii saaira al yawmi bu waxaan lu mel noonu rek
wala jaam ba tey bu roy yonent ci wax ji rek bu ko waxee seytaane dafay wax ne jaam boobu de wuttu nañ ko ci man ci mboolem def bi samay lor du mën a yegg ci moom kon ñu déggee ci ne kuy dugg jàkk daal boo bëggee mucc ci seytaane ba boo duggee sa xol yàlla rek a ciy nekk loo jëf yàlla tax nga di ko jëf doo ci def dara luy ngistal da ngay wax baat yooyu ndax seytaane sore la nga mucc ci moom ci bis boobu rawaahu abu daawuda wa kaana ibnu umara yadxulu almasjida bi rijlihi lyumna wa yaxruju bi rijlihi lyusra buntab julli la buy wax ci teggiin yi ab jullit war a teggi woonoo ci jàkka ja mu ne ibnu omar doomi omar bu daan dugg jàkka day duggee tànkub ndeyjooram buy génn génn njëkk a génne tànkub càmmoñam teggiinu lépp loo xam ne ñoo ngi koy def ci njàngale mi yonent sallallahu alayhi wa sallam mooy booy joxe joxel loxo ndeyjoor booy jël jëleel loxo ndeyjoor booy lekk ndeyjoor booy naan ndeyjoor ak lépp looy def bismillah barab bu tedd bu baax bu nekk rawat na néegub yàlla di jàkka boo fay duggit nañ tànkub ndeyjoor njëkk a dugg booy génnit na fa tànkub ndeyjoor mujj kon tànkub càmmoñ mooy njëkk a génn la wax ne ibnu omar loolu la daan def lu mu def nag ñu nettali ko la muy tekki mooy yonent moo ko daan def moo ko jàngale woon moo tax xam-xamam ca njàngaleem yonent moom it mu doon jëfee loolu waaye nag ba tey it ngeen dégg ci ne xol bi daal na def ci jàkka ji na jiitu ci jàkka ji wala na mujj ci jàkka ji ba nga xam ne balaa ngay yegg ak sa jëmm ak sa tànku ndeyjoor ci jàkka ja na fa xol ba jiitu booy génn it na fa xol ba def jëmm ja njëkk a génn kon tànkub ndeyjoor ba njëkk a dugg tànkub càmmoñ ba njëkk a dégg baax na jëfee leen ko ca noona waaye xol ba it nag nay njëkk a dugg nay mujj génn mooy foo toll rek sa xol na jëm ci néegub yàlla ba néegub yàlla bi nag boo mënee muy jàkka ja baax na waaye boo mënee muy sa xol bi ci sa bopp nag mu gën a jegeeti kon doo tàqale ko ne yow yaa ngi ci néegub yàlla bi wala néegub yàlla baa ngi ci yow رواه البخاري عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس رواه الخمسة أبي قتادة neena jëlee na ci yonent sallallahu alayhi wa sallam yonent wax ne ku mu doon ci yéen bu duggee ci jàkka ji jàkka ji buñ ko waxee teg ci alifun ak laamun kon jàkka ju ñu xamle la jàkka ju ñu ràññee la ci jàkka yi mooy jàkka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye nag jàkka ju mën a doon rek jàppal ne jàkka yonent bi la moom rek kay jàkka jàkka yëpp buñ koy tabax dañuy jéem a yaatal rek jàkka jooja ci goxi àddina bi ku jàppee noona foo toll sa jàkka dana nekk jàkka ju màgg joo màggali ci sa xol lool kon nag kuy dugg ci yéen jàkka na julli ñaari rakka njëkk muy toog ñëw nga bëgg nga julli julli farata taxawalaguñ julli ga boo yegtee bul toog rek julli ñaari ràkk nuyoo ko jàkka ja bu julli farata ñëwee nag nga doog a taxaw ànd ak nit ñi soo yegtee na fekk taxawal nañ julli farata gi kon bul def ñaari ràkk yooya ida uqimati salaatu la salaata illa al maktuba bu ñu xasee ba taxawal julli beneen julli waru faa am lu dul bañ farataal ba nga xam ne mooy ba ñu taxawal ca waxtu ba kon nag na waxtu way nekk waxtu woo xam ne nit mën na caa naafale ndax am na ci waxtu tere nañ ko ci naafale jàngoon nañu ko bu ngeen ko fàttewulee fa zawal jotee te jant bi jéngeegul nenn foofa digg bëccëg la bàyyil ba jant bi jéngee wàll maanaam jublu na sowu sa takk ndeer jublu penku lum néew néew rek boobaa mën ngaa naafale benn ñaareel ba mooy gannaaw jullik suba ba yor yor di jot jant ba ay xonqi xonqam yam doon fenkee dem ba mu leer naññ ba bët ñimetu ko xool ak tàngooram ak leeram foofa diggante booba ak jant bi mel nii moo tudd waruñ fa naafale buy sooy itam nga xam ne tàmbali na di génnee ay xonq xonqam ba ba muy duggee te mooy ba timis jot ba nga sëlmal timis it aaye nañ ko fa naafale lu dul yii waxtu boo ci duggee ci jàkka defal tahiyatul masjid te mooy ñaar rakka yooyu julli lii nag donte bisub àjjuma la itam nag na nga xam ne boo yegsee fekk nga imaam di xutba loola moom borom xam-xam yi wutee am na ca da ngay toog rek déglu xutba ga wala da ngay def sa ñaari rakka dog a xut dog a toog ay wutee am na ci diggante Shaafi yu ak Ahmad ak Isaaqa ak Malik ak Xanafiya waaye wute yu ndaw rek la liñ jàng daal yonent jàngale ko sallallahu alayhi wa sallam lii la borom xam-xam yi nag di borom ngir yi am nañu dégg yoo xam ne yu yaatu la ci njàngaleem yonent lii moo tax ngay gis ñuy jël seen ngir di jëfee seeni ndigal ñii ca Malik lañu atey Malik nag la mu wax boo fekkee imaam toog na ci minbar yow toogal bul naafale kon loolu di ñaar rakk yi loolu la ñuy tuddee tahiyatul masjid ñu jëlee ci Kaab ibni Malik radiallahu anhu ba tey xaala mu wax ne kaana nabi sallallahu alayhi wa sallam ida qadima min safarin badaa bilmasjidi fa salaa fihi rawahu sheykhaani wa lafzu muslimin kaana laa yaqdum min safarin illa nahaaran fi duha fa ida qadima badaa bilmasjidi fa salaa fihi rakaatayni suma jalasa fihi lii la wax mu ne yonent sallallahu alayhi wa sallam ida qadima bu ñibbisi waan min safarin jógee ci tukki bada adday tàmbalee bil masjidi ci jàkka ja dafay njëkk a dugg ci jàkka ja njëkk muy dugg këram mu dal di julli ñaari rakka loolu la daan def bu daan dem itam balaa muy dem dafay jaar ci jàkka ji julli fa ñaar rakk doog a dem kon xadis bi nga xam ne Kaab ibni Malik moo ko solo nee na bu fekkee ne jógewaat na ci tukki dafay njëkk a dem ci jàkka ji julli ñaar rakk loolu la wax Seyxaani solo loolu muslim nag it nettali na xadis bi waaye dafa wax it ne kaana laa yaxdumu min safarin daawul ñëw ci tukki illa nahaaran lu dul bëccëg la daan yegsi fi duxaa ci waxtu yor yor fa ida qadima badaa bil masjid bu yegsi waan mu tàmbalee ca jàkka ja jàkka ja lay njëkka dem fa salla fihi mu julli fa rakaati ni ñaar rakka su ma jalasa fihi mu toog nag ci jàkka ja képp ku yëg ne yonente ñëw na nga ñëw nuyu ko ci biir jàkka ji sargalanteeg moom ba mu yëg ne ñu koy nuyu yépp nuyu nañu ko mu doog a dugg ci kër ga ñi la yonent daan def sallallahu alayhi wa sallam kon ba tey itam ku mu doon ci yéen bu waree tukki rafet na donte këram la na def këram ne mooy jàkka ja mu julli ñaari rakka bu ko mënee def saar wu ko neex baax na waaye bu ko mënee def fatiha qul ya ayyuhal kaafiroon rakkaab ñaareel fatiha qul wallahu ahad doog a demit baax na lool boo yegsee itam nga def lu mel noonu baax na lool kon jëmmalal sa dëkkuwaay muy jàkkay yonent ba jëlal sa jëf yu nu mel roye ko jëfu yonent ba sallallahu alayhi wa sallam ndax moo wax ne defal nañ ma suuf lépp di jàkka bu la jàkka jegee nga mën a def loolu baax na wa ilaa defal sa kër muy jàkka ja nga defee noonu say rakka yiw la léppam yiw la an anas ñu jëlee ci anas mu jëlee ci yonent sallallahu alayhi wa sallam yonent wax ne albuzaaqu fil masjidi xatiatun wa kafaratuha dafnuha albuzaaqu tafli fil masjidi ci jàkka ji xatiatun bakkaar la waaye wa kafaratuha liy far yooyu bakkaar nag ca ka def dafnuha mooy na nga sul lay taflit wax tafli ci jàkka joo xam ne beeñ la suuf la bari na amuloo musuwaar boo ko tafli te taflit wa nekk na loo xam ne neexul wann tafli ko ci jàkka jalaal rafetul waaye boo ko xasee def itam sul ko boo ko sulee rek baax na jàkka yooya woon nag bokkul ak jàkk yi léegi jàkka yu njëkk ya suufa ca daan nekk néegi mag ñu njëkk ñooña sax da daan bari suuf nit mën na cay taflee ki sul waaye néegi léegi yi jàkkaay léegi yi duwatul ay néega ki jàkk yoo xam ne nit mën na cay tëflee ki nit mën ca yàbbi ay guro ki nit mën caa def yenn yoo xam ne dëppoowul ak ak laab dëppawul a set kon nag bu doon karoy kese sax rafetu ca rawatina moket yaag rawatina jàkka joo xam ne defar nañ ko ba mel na mu war a mel kon bul tilimal setalal ku def lu mel ni taflit yooyu ci jàkka def na bakkaar bu mag kon nag bu fekkee ni def na ko lay bakkaar ba la koy faxas sul ko ku juum ba def ko nag ci barab boo xam ne karo la xanaa mun nañu wax ne kon la koy faxas mooy fomp ko waaye bañ a am gaa gën nag muy xadis boo xam ne ñeenti solo nañ ko muslim ba tey wax ne aridat alayya amalu ummati xasanuha wa sayiuha fa wajadtu fi maxaasini amaliha al ada yumaatu an ittariqi muslim wax na ne yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na wan nañ ma sama jëfu xeet wi sama jëfu xeet lépp wan nañ ma ko la ca rafet ak la ca ñaaw aridat alayya gaaral nañ ma amalu ummati sama jëfu xeet xasanuha la ca rafet wa sayiuha ak la ca ñaaw fa wajadtu fi maxaasini amaliha ma fekk ca yu rafetu sama jëfu xeet al asa yumaatu ani tariqi loolu mooy lan al asa loo xam ne dafay lore lu mel ni dég la lu mel ni doj la wu mën a fakkastal nit lu mel ni lu mel ni lépp loo xam ne rek nit mën na caa lore nit fexe ba randal ko ca yoon wa loola ci rafet yi nga xam ne la gis naa ne sama xeet yàlla baaxee na leen mu nekkal leen kon nag yi baax bari na bokk na ca nag loolu lépp loo gis ne aw nit buñ fa jaaree mën na leen a lor rek boo ko randalee def nga jaamu yàlla bu kawe daraja wa wajadtu fi masaawi amaliha fekk naa ca seen yu ñaawu jëfitam nu xaata sunu fil masjidi laa tut fanu benn taflitu xaqar ñekku wu ñu def ci jàkka te kenn sulu ko fekk naa ne yu bon yeyit loola ci la xadis bangoogu fekk naa wan nañ ma sama jëfu xeet yu baax ya ak yu bon ya yu baax ya fekk naa ci ne randal lu mën a lor ni sax ci kaw yoon ca yu baax ya la yu bon ya fekk naa ca taflit wu ñu tafli ci jàkka te kenn sulu ko bépp barab boo xam ne nag nit ñi dañ fay faral di dajee rek ku fa def taflit wu nu mel itam nag def na lenn ca bàkkaar ya wa anhu ñu jëlee ba tey ci anas ne ana nabiya naka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam raa gis na nuxaamatan benn taflit nuxa ata ak nuxa mata yépp ay taflit la gis na ko fi fil qiblati ca kanamu jàkka ja fa xakkaha bi yadihi mu wokk ko ak loxoom yonent gis na ci qiblay jàkkaam taflit wu wow mu wokk ko ak loxoom kon nag wutooy wa sulal wu wow wa ba tey fexeel ba mu jógee fa mu nekk rek bu mu ci doon rek waru fa nekk wa ruya minhu ñu jëlee ba tey ci kii di anas karaaxiyatul muy ne loolu dañ ko sib aw ruya wala ñu jëlee ba tey ne karahiyatuhu li dalika loolu yonent def li muy tekki wokk taflit ba mooy tekki ne loolu daal dañ ko sib baaxul ndax bu nekk loon lu aay du ko wokk daka cay bàyyi rek kon jëf jëmu jëf fomp ko mooy tekki rek ne lii baaxul na ko rafetul wokk na ko ñu xam ne bu waxul ne sax bu leen ko defati danañ xam ne lii kat li tax mu dindi ko mooy ne dafa baaxul karahiyatuhu lidalika wa shiddatu alayhi wa qaala mu ne inna ahadakum kenn ci yéen ida qaama bu taxawee fi salaatihi ci jullim fa innama yunaaji rabbahu mu ngay dé déyante ak boromam ku taxaw ci yéen di julli mu ngay déyante ak boromam kon nag falaa yabzuqanna fi qiblatihi bu mu tafli ca kanamam ku mu doon ci yéen taxawal na julli di julli na xam ne mu ngi déeyaaleeg borom bi kuy déeyaaleeg ku màgg ni borom bi nag jël saw taflit tafli ko ci sa kanam ndax kon jàppaloo ne yaa ngi koy tafli ci borom bi mu ne bu leen ko def ku mu doon ci yéen na xam ne mu ngi diyaaleeg boromam kuy deyaale kilifa goo màggal koo weg nag doo ko def rawatina borom bi subhanahu wa taala walakin an yasaarihi boo koy def na nga ko def ci sa càmmoñ aw taxta qadamihi wala ci ron ndëggum mënuloo bañ a tafli ci barab boo mën a taflee ci suuf bul tafli sa kanam taflil ci sa wàllu càmmoñ wala boog ci sa roni tànk wàqil sul sa tafli ba suma aqasa tarafa ridaihi fa bazaqa fihi warada baadu ala baadin wa qaala aw yafalu hakada wala boog mu ne mu jël catu tarafa ridaihi catu làmbaayam catu malaanam fa bazaqa fihi mu tafli ci amuloo foo mën a tafli ci sa càmmoñ wala sa diggante ñaari tànk jëlal sa catu mbubb rek nga tafli ci boo amoon musuwaar nag moo gën a mat taflil laxas ba mu baax dugal sa jiba boo génnee sànni ji kon nag lam def nee na jël na catu mbubbam tafli ci warada baadu ala baadin wa qaala aw yafalu hakada an abi hurayra te ñu jëlee ci abu hurayra mu ne ana rajulan aswada waaye ju ñuul awi imraatan sawdaa wala jigéen ju ñuul waa ji ñuy wax ku góor la ku ñuul wala ku jigéen la ku ñuul wóoratul kii solo xadis bi di abu hurayra te kan la ca ne daal kaana yaqummul masjida daf daan bale jàkka ja kaana nekkoon na yaqumm di bale di setal al masjida jàkka ja fa maata mu faatu fa saala nabi yonent dal di laaj anhu ca waaj yooju fa qaalu maata ñu ne ko waaje de dee na qaala mu ne afala kuntum aazantumuni bihi lu teewoon ngeen yëgal ma faatum dallu nii ala qabrihi wan leen ma qabrum ñu wan ko qabru ba fa ata qabrahu mu ñëw ca qabru ba fa sala alayhi dal di ko jullee ñu déggee ci ne képp ku fonk néegub yàlla bi di ko toppatoo ci kem kàttanam jullit ñëpp war nañ koo fonk kii fonkoon na jàkka ji di ko bale faatu na yonent yëgu ko bañ denc ko yonent laaj ko ñu ne ko faatu na mu ne lu taxoon yëgalu leen ma ko ma taxawee ko la ca war ma def ko ca ba ñëpp xam ne ku baax a ngi ndax ku baax bu taxawee waaye rek dañuy xam ne waaje baax na moo tax nit ñi ëppante nañ daraja kem seenu mbaax ya kenn ku nekk sa mbaax nam toll rek ñu baax ñi noonu lañ la war a jàppee ku nekk nag yemaayam nam toll rek nañ ko booleeg ñu yemaay ndax loolu dina sawarloo ñëpp ñu jéem a baax kon nag waaje def na lu baax yonent xamle na ne lu baax a ngoogu lu teewoon yëgalu leen ma ko waaye nag ba tey wan leen ma bàmmeelam ñu wan ko bàmmeel ba mu dem jullee ko ca bàmmeel ba ñu xam ne kon de kii yonent fonkoon na ko kon kuy def ba tey lu mel noonu rek xamal ne yow ku yonent bëgg nga rawaahuma athalaatha an anasin ñu jëlee ci ba tey anas an nabi sallallahu alayhi wa sallam mu jëlee moom ci yonent qaala mu ne uridat alayya ujuru ummati xatta algazatu yuxrijuha rajulu min almasjidi mu ne wan nañ ma sama yoolu jëfi jaam xeet wi ba sax xatta algazatu ba ab tilim yuxrijuha boo xam ne waaye dina ko génnee yuxrijuha rajulu waaye dina ko génnee min almasjidi ci jàkka wa uridat alayya zunubu ummati wan nañ ma ba tey bakkaari sama xeet falam ara zanban azama gisuma ci benn bàkkaar bu gën a rëy min suratin ci aw saar woo xam ne min alquran ci alquran la aw ayatin wala aaya utiyaha rajulun yàlla may na ko waaye ba mokkal ko summa nasiyaha sàggan sàggan sàggan ba fàtte ko gisuma ca bàkkaar yi lu gën a rëy yàlla baaxe jaamam may ko mu mokkal aw saar wala mokkal ab aaya sàggan ba dal di ko fàtte kon nag lu mu doon ci xeetu luy jubale ci xadis la ci waate wu rafet la ku ko dégg jàppal fonkal di jëfee ba nga xam ne di nga ko miin ci say cër kon fàtte du fa nekk ci jëfee bu fàtte nekkul ci jëfee nag la muy tekki mooy fàtte nekkul it ci dégg masala ba alquran ak xadis yépp bokk jooju wax waaye rawatina nag xadis alquran ni ko yeneen ci waxee sallallahu alayhi wa sallam muy xadis boo xam ne abu daawuda ñoo moo ko solo ak tirmisi an abad ibni tamimin jëlee nañ ci kooku di abad ibni tamim an ammihi mu jëlee ci baay taxam am bu ko arab waxee mooy ku bokk ak sa baay baay mbandee ak baay kooku la ñuy wax am jëlee na ci amam radiallahu anhu annahu raa rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam mustalqiyan gis na yonente sallallahu alayhi wa sallam jaaxaan mustalqiyan mooy ku jaaxaan fil masjidi yonente la gis mu jaaxaan ci jàkka ji waadi an mu teg ixda rijlayhi len benn tànkam ala uxra ci beneen ba mu teglante ñaari tànkam xam nga arab bu waxee mustalxiyan mu ngi mel ni wolof wax rek jaaxaan buñ nee jaaxaan rek xam nañ ni ka tëdd gannaaw gaa féetewoo suuf biir ba féetewoo kaw kon mustalxiyan mooy jaaxaan yonent dal di jaaxaan ci jàkka ji jël tànkam bii teg ko ca kaw tànk bee rawaxul xam sa juróom yëpp solo nañ ko ñu déggee ci ne kon jàkka tëdd ca aayul waaye ñu déggee ci ne it daay jaaxaan ayul kon tëdd ci jàkka feeg nga xam ne sa tëddaay xatalul nit ñi war a julli ci rek ayul wala boobu koo xam ne bu nelawee faral na di bàyyi ca barab ba mu nelawee sabe itam ku mel noona de gënul muy nelaw ci jàkka tëdd daal la ñuy wax tëdd ak nelaw nag jege nañu ku aayewul tëdd rek mel na ni aayewuloo nelaw waaye daal jàkk néegub yàlla la dafa war a laab dañ ko war a laabal ka fa war a tëdd ak yéreem na fekk yére set na na fekk yaram wa set na ndax kuy bañ taflit ci jàkka war nga faa bañ sabe su gën a rëy kon nag jàkkaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku fa dem ci jamono yii jàkka ju mag la joo xam ne rëyaayu jàkka ja rëy na lool ñu bari ci ñay aji mbaa omra ji fa la ñuy noppale ko kon aayul ndax yonente ko jàngale sallallahu alayhi wa sallam wa kaana ibnu omara wa huwa shaabun azabu la ahla lahu yanaamu fi masjidi nabii sallallahu alayhi wa sallam ibnu omar nekkoon na di waxambaane shaab mooy waxambaane azabu mooy célibataire waxambaane wu amagul jabar la ahla lahu yanaamu fi masjidi nabii sallallahu alayhi wa sallam dara nekkul ci nelaw ci jàkkaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy xadis boo xam ne rawaahu solo na ko albuxaari yu wa tirmidi yu عن أبي هريرة جلين أبي هريرة رضي الله عنه قال من بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل النجم يننت يبلون أي فس أي قوار نجمو نجد لما تفنويري أي قوار لا ينوو نجم نجد fa jaat bi rajulin bañ demee bay ñëw indiwaale benn góor boo xam ne min bani xanifata ci xeet xanifa la bokkoon yuqaalu lahu sumaamatu ñoo ngi ko doon woowe sumaama ibnu usalin noonu la tuddoon te moom moo doon sangu waa yamaama bañ ko indee farabatuhu ñu yeew ko bi saariyatin ci benn pied min sawaaril masjidi ci pied jàkka ja ñu yeew ko ci benn kenn ca kennu jàkka ja kenn wala nga ne jën ci jënu jàkka ja wala fee wax jën ni ngeen xamee jën geen ba na muy def ñaari càq ñi cay teg lu tax tabax ba wala mbaar ma mën a taxaw kon olof dana wax jën arab mooy wax amoot wala sariya emat wala sariya ci suñ jamono bi ñu miinee ko ci baatu tubaab pilier mu ne biñ ko indee ñu yeew ko ca jënu jàkka ja muy xadis boo xam ne ñett yëpp solo nañ ko luñ ca déggee mooy ni aayul koo xam ne bëgg nañ ko atte ci lislaam ñu yeew ko ci jàkka ja mën a wéyal ci moom lay atte bi lislaam yëpp ñuy wax teg yi ni jàkka lay wax kon lépp lu yeneen ci defoon wala ñu def ko ci kanamam rek ba léegi mën nañ ko jëf indi nañ waaye yeew nañ ko ci jàkka ji ñu ne ba tey kon képp koo xam ne def na luñ ko war a àtte ci yoon aayu ñu yeew ko ci jàkka ji tax ne ko ci kon wax la yuy tegtale rek ne yonent defoon na ko ba léegi mën nañ ko jëfandikoo ci lislaam sallallahu alayhi wa sallam bañ ko yeewee yonent laaj ko bu fekkee da ngaa rey ñu rey la bu fekkee nag da ngaa def lu baax ñu fayanteeg yow wane rek ne la nga def lu mu mën a doon nañ àtte wanteeg yow ci noonu ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàkkaam ja moo doon néegub yàlla bañ daan jullee de waaye moo doon école bañ daan jàngalee itam waaye moo doon tribunal bañ daan àttee itam léppam rek ci jàkkaam ja lañ ko daan defee sallallahu alayhi wa sallam kon nag ba léegi néegub yàlla daal néegub yàlla la nañ ko taxawal ngir àtteeb yàlla yi julliye la ba lépp lu ko nuru la ci wooteeb lislaam ni ko yonent daan defee ci jàkkaam ja lii rek lañ doon jàngale ci bunt bi kon nag fii lañ yeewalee woon Cheikh Ibrahim Mahmoud Diop yal na yàlla guddal fanam yokk kàttanam fii la tàmbalee woon ak ñun dartat àllarba bi jàll ba yeewal si woon ci xatum waaw mu ngi yeewalee woon ci buntab ñaar téeméer ak ñeent fukk ak juróom benn kon nag bismillahi arrahmani irrahim ñu tàmbalee foofu dartu tey bi albaabu taasiu fi ljamaati wa fihi xamsatu fusulin wa xaatimatun alfaslu l awalu fi fadli ljamaati bunt bi mooy buntab juróom-ñeenteel di wax ci mbooloo di wax ci mbooloo maanaam jullit mbooloo ngëneel yi ci nekk mu nekk bunt boo xam ne am na juróomi bunt bunt yu nekk ci biir ak buñ tëjee bunt ya ba ci njëkk nag mu ngi wax ci ngëneelug mbooloo ñu ngi ko ubbee aayab alquran bi yàlla di wax ne qaala allahu taala aaya bi wa ida kunta fihim fa aqamta lahum alsalata faltaqum taifatun minhum maaka loolu la ubbee bunt bi wa ida kunta bu fekkee ne nekk nga yow yonent bi fihim ca ñoom jullit ñi fa aqamta lahumu salaata nga jiite leen julli faltaqum na taxaw taifatun kuréel minhum ci jullit ñi maaka ànd ak yow am na nag leneen lu ca topp ca aaya yi ku ko bëggoon a firi wax ju gudd la kon danañu jox danañu doy sax dara wa ida kunta fihim boo nekkee ci ñoom jullit ñi fa aqamta lahum salaata nga di leen jiite julli lu war a am lam ca teg fal taqum na taxaw taifatun aw kuréel minhum ci ñoom maaka na aw kuréel taxaw ànd ak yow yonent ànd ak ñun sallallahu alayhi wa sallam bu fekkee yonent dafa ànd ak ñun buñ ne ñun nag nañ jàpp ne ñooy saxaaba yi rek buñ wax ne yonent saxaaba yi la nekkaloon mu jeex nañ jàpp ne ba tey yonent baa ngi ku jikko woo jikko bu mel noonu jàpp ne yonent baa ngi ba tey foo toll yaa ngi rafetal ci sa wax ci sa jëf wa ida kunta fihim boo nekkee ci ñoom fa aqamta lahumu salaata nga jiite leen julli fal taqum taifatun na aw kuréel taxaw minhum ci jullit ña maa ak ànd ak yow wal wal yaqudu aslihatahum ñu téye seen gànnaay kon ngeen déggee ci ne la tax yàlla di wax wax ji mooy jamonoy xeex la noon yaa ngi bëgg a songu jullit ñi jullit ñaa ngi taxaw bëgg a julli bu ñu tegee ñoom ñëpp seen gànnaay ya ñuy xeexee julleen door ak yeneen noon ya mën nañ leen a bett yàlla ngay jàngale nag naka la ñuy jullee julli bu nu mel mu ne kon na ñenn ñëw taxaw ak yow julleeg yow ràkk bii ñeneen ñi taxaw fële di xool noon yi di xool seen gànnaay yi fa ngeen ko teg ndax buñ ñëw song leen ndax buñ ñëw rocc ci seen gànnaay yi te bu leen ko yëg du ngeen ko yëg waaw mu ne kon nag na ngeen taxaw ak yonent benn rakka loolu nag ci la fiqu yi ñëwee xam nga lii rek la alxuraan wax waaye njàngaleem yonent mooy leeral julli googu naka lay demee fuqahaa yi nag gën ko leeral ci naka lay demee boo demee ci risaala boo demee ci muwatta imam malik boo demee ci téere fiqu yi daal leeral nañ julli googu naka lay demee alquran moom dafa wax ni na benn kuréel ñëw taxaw ak yow ñeneen ñi nañ seet seen gànnaay te nag téye seen sécurité fa isa sajadoo fal yakunu min waraikum boo sujootee ñoom ñeneen nañ taxaw sa gannaaw di xool noon ya wala di xool ngànnaay yi kon ñii nañ julleeg yow benn rakka bu mooy seen julli mu jeex jullig benn rakka rek kon wala boog borom xam-xam yi ne déedéet buñ julleeg moom benn rakka nañu julliwaat julli ga bu fekkee julli ñaar rakka la xam nga kuy tukki day wàññi julli kon julli ga ñaari rakka la war a doon yeneen si taxawal na benn rakka na mbooloo ñëw ànd ak moom rakka bi yeneen si toog di xaar ñeneen ñee nañu mottali seen julli nañ mottali seen julli bu doon julli ñaar la nañ indi beneen ñaareel sëlmal ñeneen ñëw ànd ak yeneen si julli rakkaab ñaareel ba yeneen ci jullim pare na ñu li indi seen beneen rakka ñaareel seen julli pare wala ñu ne yàlla lii rek la wax kon benn rakka la wax kon kay benn rakka rek la kon julli benn rakka foofu lay amee benn rakka rek mu jeex ñeneen ñëwaat ñoom it am benn rakka rek sëlmal mu jeex kon yeneen ci julli na ñaari rakka mbooloo yi kenn ku nekk julli benn rakk waaye fuqaa yi ñoom niñ ko firee nii ma njëkk a waxee la kon fa ida sajadoo fal yakunu min waraikum wal taati taifatun uxra beneen kuréel ñëw lam yu salloo boo xam ne julleeguñu woon fal yu salloo ñu julli nag maa ka ànd ak yow rakkab ñaareel bi wal yaqtu hijrahum ñoom it nañ jël na seen fagaru wa aslixatahum nañ ci seen gànnaay ndax wadda alladina kafaroo gaa ya weddi ñoom la ñu bëggoon mooy law tafuloo na ngeen sàgganoon bañ a te seen ngànnaay bañ a taxaw xool noon yi ngeen sàgganee an aslihatikum ci seen ngànnaay yi wa amtiatikum ak seen yóbbal yi ngeen di dundee ak lépp lu ngeen soxla ci seen tukki fa yamiluuna alaykum maylatan ñu dal di leen song rek benn songin wahidatan benn rek ngeen dal di raaf nag jeex ñoom loolu lañ doon bëgg waaye nag bu leen defee noonu nii ngeen war a jullee muy ni ma waxee ngay dem nag aaya ba ak lam ca teg lépp wala juna alaykum in kaana bikum adan min matarin aw kuntum marda an tadau aslihatakum wa qutu hijrakum inna allaha aada lil kafirina azaban muhinan njàngaleem alquran yaatu na lool waaye dégg leen rek ne yàlla waxoon na ci aaya ne wa ma kaana allah ma kaana allahu li yuazibuhum wa anta fihim wa ma kaana allahu muazibuhum wa hum yastaghfiruh wa ida kunta fihim dégg leen tuuti déggin bu gën a xóot wa ida kunta fihim boo nekkee ci ñoom jullit ñi kon yonent nekkam ba mu nekkoon ci jamono jiñ ko xamee woon ci jëmmu doom aadamaam ji ca Makka ak Medina nekkin la ñu nekkoon ak moom àndoon nañu ak moom ca lekk googa beneen jamono feeñu waayam dana feeñaat ca ñeneen na ñeneen àndaat ak moom ca noona sa xam ne rek moom la mën nañ caa déggee noonu de te ñu xam ne kon ñi àndoon ak moom ca booba jamono ak ñi àndaat ak moom ci bii jamono ñoom ñëpp moom lañ àndal ñoom ñëpp nag ma kaana allahu li yuazibuhum yàlla du leen buggal fekk yonent baa ngi nekk ci seen biir kon yonent bi jogu fi buñ yëgee ne jogu fi ñoo ngi àndoog moom rek mbugal ma du yegg ci mukk nag wa ida kunta fihim loolu la yàlla wax bu fekkee yaa ngi nekk ci seen biir te aaya booba waxoon ne ma kaana allahu li li yuazibuhum ma kaana allahu li yuazibuhum wa anta fii ma kaana allahu muazibuhum wa hum yastaghfiroon kon fekk yaa ngi nekk ci ñoom yàlla du leen bëggal fekk ñoo ngay def di balu yi yàlla du leen bëggal kon nag benn nekkin la bu law ci jamono yëpp wala boog benn nekkin la bu ñu xam bu jeexee la fa des mooy ñu des di balu kon nag nit mën nañ cee yaakaar suñ tariqa bii ñu nekkee di balu yàlla suba ngoon ne kay bu fekkee jàpp nañ ne yonent dem naag jëmmam jë des nañ ñun di balu ba te yàlla ne du ñu bëgg ndax